leen wax leen damaa jóge kër al amin ndax ku ne tijaan xam ne tey déclaration bi nga xamante ni moom la suñu kilifa gi du doon def moom laa teewee nu xawoon fa guddee loolu ma leen di baalu àq di ñaan yàlla ndaje bii ngeen xam ne moom ngeen ko def bu mu doon premier ndaje yàlla na ko fi yàlla saxal leen wax ni leen politique ay idée la xool la ndax xool bu baax soo ko amee te yàlla jëf nga tudd Seydina Mohamed war ngaa mën a jël ci jikko yooyu pour vraiment mën a développer politique bi nga bëgg dañ ni politique c'est l'art de la cité te gëm naa ne ñii ma fi fekk tey muy jigéen ñi nga xam ne noo mën góor ñi ak ay ndaw yu ma fekk ñuy émerger ak ñi nga xamante ne ñooy suñu baay yi ñooy suñu mag yeeg suñu kilifa yi damay ñaan yàlla lii yàlla na fi yàgg man nag ci Abdoulaye Wade laa nekkoon ku ne xam na ko waaye ku jeexal rek war ngaa jeexal te soo iñaanul war ngaa xam ne mag Macky Sall moom la yàlla teg mu nekk suma xarit nekk suma doomu ndey Marrakech gii noo fi ànd yaa même pas une semaine ñëwandoo ma koy wax nag jigéenu Thiès yi di ñaan yàlla samedi bii di ñëw damaa bëgg damay jëli suwaat Thiès parce que su ma ñëwee ci guddi gii rek nuyu leen asalaamaaleykum salaamaaleykum yéen di ngeen ni waa kii xanaa daf ñuy nax li ma bëgg ngeen dégg ko damay toog samedi ngeen wax ko ba lépp dugg sama nopp yi ma tënk ko xam lan mooy soxla yi wax ko président Macky Sall wax ko première dame mi nga xam ne ba ngeenul liggéey ñi dara ma leen di wax nag Sénégal mi ngi avancé fii ku liggéey jariñoo Macky Sall ngi teg Sénégal sur les rampes de l'émergence ndax emploi yi noo koy créé ville religieuse yi soo demee Tivaouane li fa Macky Sall def de 1960 à nos jours amu fi Touba hôpital yeeg pont yeeg autorité yi Ila Touba maladie universelle yi stade ñaa yi yëpp Macky Sall mi ngi koy def ba pare nag jabaram di dimbali jigéen ñi di jàppale jigéen ñi xam naa ni yéen da ngeen amul interlocuteur bu baax ndax ñi nga xamante ni noo fi nekkoon suñu leen dimbali woon doo leen saxloon ndimbal feneen ci lu ci Thiès soo leen jéggee Thiès dem feneen ñi fi nekk noo deful seen liggéey waaye maa ngeen ñaa di ñaan ngeen émerger jàppale président Macky Sall yi ñëw en 2017 mu remporté une majorité écrasante élection yi ñëw au premier tour de l'élection en 2019 Macky Sall dóor dóor ba dóoral ci jërëjëf. tudd Astou Ndoye présidente mouvement des jeunes femmes APR waaw c'est-à-dire li ma wax sànq laa leen di répété waatal léegi rek euh, Mouhamed mi sama frère la ñuy ay jeunes femmes yoo xamante ne dañu bëgg ku ñu jàppale ñuy liggéey du ay battante ñun ñi fi daje yooyu yëpp ay battante lañ. léegi ma waxtaana nag moom nag ne ko dañu bëggoon nga jàppale waa kër Sayib Ndoye bi ma ko xee nag mu ne ma bu soobee yàlla dinaa ñëw kër Sayib lépp lu may defati dinaa leen ci jiital moom la wax léegi nee na ma yéen laa mujjee xam yéen laa mujjee xam mais yéen laa njëkk a jàppale wax dëgg yàlla te gëm ko ndax dafa doomu aadama yàlla dafa bind ñaar yoo xam ne moo sàkkale ci moom muy xol ak kàddoom rajo laa ko déglu dem këram wax ak moom mu mu mu mu téye samay wax ne ma dinaa fa ñëw njëkk na maa woo ne ma dinaa ñëw seet si leen ma tombeeg daju xale yi ñu fi amoon keroog yàlla def waaw moom laa wax yàlla def tey ji la ko dogal ma wax ko jigéen ñi fii yëpp dafa feesoon del mais jigéen ku ne xam na ne heure bi day fay nekk këram di dafa reer ak yëpp looloo tax ñu dem mais am nañu jafe-jafe ci dëkk bi parce que wax dëgg yàlla genn wàll jigéen yëpp dañuy xëy dem marché mais amuñu fu ñu toog pour jaay bu ñu xëyee dañ leen di tong-tongal la ñuy gàddu seen kii te genn wàll maraîchage bi bi dugg Thiès yëpp marché Thiès fii lay jóge dañuy yóbbu salade dañuy yóbbu ay naana lu ne la yóbbu dëgg yàlla mais toogaay sa mi jigéen sa sa day daw parce que fu ñu toog sa duñ ko am ñuy ñaan ku ñu jàppale ci loolu ak ku ñu jàppale ci lu ñu liggéey vraiment soxla nañ ko lool ndax ñun ñëpp dañuy liggéey ay batante lañ mais soxla nañ fond soxla nañ fond waaw waaw dina ñëw soxla nañ fond soxla nañu ay fonds yu ñu liggéeyee yu ñu jàppale fu ñu toog uh, di jaay ak courant bi tam manqué na yàlla dafa def yéen a ko fekkee heure bi ngeen ñëwoon bu doon fekkoon teel ngeen a ñëw peut-être duñ ko gis mais fii yëpp benn lamp tàkku fi benn lampe tàkku fi ñu ngi biir Thiès ay benn benn lampe dañu tëb sax fii ay ay ñi njëkk sax dañ leen a tëb sànni sànni ay benn lampe ci kaw tali bi genn wàll gépp amuñu lampe ak ndox waaw insécurité moom kenn waxaalew ko fii moom timis ñi ma woo génn vraiment ñi ma woo génn timis dañuy kar fii ñaari ñaari miir yi ngeen romb mais ñaari miir yi dalal xel yi jigéen wax ma góor wax ma jigéen sax mais góor ñi ma fa jaar à partir de vingt heures kenn ñi woo ko loolu moom insécurité bi moom vraiment ku ne xam ne dafa wër ci réew mi mais fii nag moo ci ëpp parce que amuñuy lampe vraiment amuñu am amuñu benn benn sécurité boo xam ne mën nañu génn dox guddi à partir de vingt heures vraiment dañuy arrêté. loolu nag dama lay bañ a dog mhm, doguma la. Mhm, ah. mhm, euh, léegi nii su may départ. waaw euh, parce que ministre de l'intérieur ma moom jokkoo noonu léegi nii. ci message la. directeur Sénélec rek dem maa ngi moom noo nekk. damay jàpp balaa may ñëwaat fii samedi. yii ñaar ngeen wax saafara. waaw bu soobee yàlla lool moom. loolu moom boo ñu ko waxee dinañ ko gëm. Mayoro Ndoye Mayoro Ndoye délégué de quartier Kër Seyib Ndoye maa ngi leen di nuyu góor ak jigéen ma ak ndaw ku teew ak ku teewul yëpp boole naa leen ci biir nuyoo bi di ñaan jàmm ci réew mi te kër Sëriñ ëpp ëppale ci nag ci jàmm ji ak ngëneel gi su ma yoroon la ca loxol yàlla day bala maa sedd kenn sedd kër Sëriñ Ibnu wax dëgg yàlla bëgg naa na ngeen jàppale ma ci te yàlla tax ndox courant place bu ñu liggéeye maraîchage ci am na am na nu dex école bi doxul amul amul amul matewul classe yi matewul maître yi mate na waaye classe yi matewul xale yu góor yi amuñu liggéey borom kër yi ndaw yi amuñu liggéey jigéen ñi itam nii ko soxna si waxee ni la demee kenn ku ci nekk day xëy di daani doole marché waaye taxul mu sotti ci ay xel lañ ku ci nekk dangay taxaw sa kawe daal ngàbb sam njaay ci biir marché Thiès ñu ne dàq ngay daw ak sama sam njaay yàgg kiy jënd ki gis na li nga yor bëgg na ko waaye man laa taxaw pour jaay ko ko ñu bëgg ñu wutal leen fu ñuy jaaye fu ñuy liggéeyee di fa daan seen doole. mën a jëriñ seen bopp mën a jëriñ seen i doom jàppale seen jëkkër loolu bëgg bëgg nañu ko noo ngi koy ñaan di ko sàkku. asalaam.